salaam mbokk internetu Diassigui TV dal leen jàmb ci xibaar yi tiis bu metti moo am fële ci muur ab samba booy moo wàcc ci marché bi akub pistole ba faat fa ñaari bakkan ba ñenn ci am ci ay gaañu ba tax askan wi génne ngir amal doxalab ñaxtu ngir ñaawlu li ni mel nee nañ duñu wa bàyyi waaji du dund ndax bakkan yi mu faat yépp dafa bari gannaaw ba mu duggee ci sa marché ba moom waaji da leen bëggoon cambriolé ñoo ñu riposte ci la daal di génne ab pistolet ba faat fa ñaari nit ñu ngi ñuy xamal ni waaji mu nga bàyyeekoo ca Guinée Guinée di wuyoo ci tuuru Ali Koyaate yaakaaree ne jeex na mu ñëwaat ci réew mi muy loo xamante ne askan wi yëpp mu ñoo taxaw ñaawlu ko xale yu ndaw ñoo koy def ay vidéo le motif la muy nekk loo xamante ne lu ñaaw a ñaaw la paana ma nga xewee fële ci école Sacré-Cœur ay xale yu ndaw di def naka su dul noonu boole ko di filmer seen bopp ba mu tas ci réseaux sociaux ñuy laajte ndax jàng bi mooy bëgg a changer wala éducation moo amatul ci réew mi wala xale yi ñoo xamatul lan moo leen war école wala parent yi ñoo seen ñoo seetlootul seeni doom ñu wax ci leneen Pape Alé Niang kaawa mu ngi gën di garaaw gannaaw ab grève de la faim boo nga xamante ne mu ngi ko doon amal fële ca prison ba mu nekk ci Sébikotane moom journaliste d'investigation bi la ñu ngi koy tuumaal ni dafa génne ay fausse information ba ñu tegoon ko ci loxo ci novembre bi ñu génne niki démb nag la ñu ko yóbbu hôpital ndaxte kaawam dafa gën a garaaw gannaaw li nga xamante ni mooy grève de la bi nga xamante ne mu ngi ko doon amal moom Pape Alé daf ci mujjee sonn ba ñu évacuer ko axlu théâtre tis bu metti moo dal ci seen kaw artiste comédien bi di Sarr la ñuy xamal ne dafa faatu ni niki démb mu artiste comédien boobu la yàgg ñu bëggal ci ay théâtre yoo xamante ne doon na ko amal fii ci réew mi ñu gën ko ci ràññee ci théâtre bu ñuy wax faatu te ñu dippee ko ci woon Massa Kims yal na yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi ak teewlu bi mbokku internetu Diassigui TV